asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi fii ci hôpital régional Thierno Birahim ndaw bu Kaffrine euh, solo yi ñëw bi fii mooy dañu ànd ak délégation Ansaaru Diin ki ko jiite ci Cheikh Mounhamina Ibrahim Niass waaye ànd ak euh, Cheikh Baye euh, Ousmane Fati Niass ñu gën koo xam ci Baye Khady waaye ànd ak tamit Cheikh Ibrahima Ba bu ba mu nga xam ne moo représenté xalif bi foofu ci diwaani Kaffrine ñu doon dem seeti ñi nga xamante ne nii ñooy awsa yi jóge woon Nigéria yàlla defoon ñu def choc. foofu noonu ci diwaanu Kaffrine ba amoon kenn ku ci ñàkk bakkanam am juróom-ñaari blessé moom lañ ñëw di seet si ñu ànd ak yéen dugg ci biir hôpital bi xool malade yi naka lañ tëddee. waaw tey euh, fu mu toll nii depuis altine am nañu malade yu fi ñëw euh, mu nekk juróom-ñaari malade am na ci yoo xam ne nag moom bi ñu ñëwee il fallait que ñu ñu ñu ñu jël leen en charge rapidement parce que li ñuy wax ay urgence la woon. bon ñoom ñëpp ay urgence la woon mais xam nga urgence da koy da nga koy classé am na ñoo xam ne il faut ñu jël leen en charge tout de suite loolu ñoom moom def nañ ko ñett la woon yoo xam ne ay gaañu gaañu lañ amoon ci tànk yi ay gaañu gaañu yu ubbeeku ah, ñu koy wax ay ay traumatisme ouvert donc yooyu en tout cas yàlla suturaal nañu ba yooyu jël nañ leen en charge ba léegi ñoom ñu ngi hospitalisé ci service bi ñi si des nag ay damm-damm lañ am ñoom damm-damm yi moom euh, faj bi ñu ngi ci parce que liñ ko war a def en tout cas ci urgence def nañ ko donc li ci dess moy après dañ leen di préparer pour mën leen opérer pour pour sen sen sen damu damu yoy ñu mën ko lijeenti ñaata nit ñoo am damu damu bon li am ay damu damu ñent lañ ñom ñep juroom ñaar la mais amna ñent ba juroom sax mais kenn ki dafa dafa damone mais dafa ko donc ko opérer nañ ko ba paré fixateur externe nañ ko defal donc juroom la hmm. ci juroom ñaar juroom yep am nañ ay damu damu hmm voilà donc loolu la. am ku ci ñak bakanam wa amna na ku ci ñak bakanam mais kooku depuis urgence la won hmm. fofu la fofu la ñaké bakanam hmm. kon nombre total accidenté yëpp mu ngi toll ci 8 wa 8 ñofi fi hmm. donc kenn ki ñak ba ñak ñak bakanam ñeneen ñi juróom-ñaari ñu ngi fi. taxaway bi dafa melni def ngeen ko lu jitu ngeen di daral euh, kilifa gi fi ñew di Cheikh Mouhamina Ibrahima ngiss wa xam nga loolu mom dafa bok ci ay consignes euh, ministère de la santé suñu suñu tutelle. Euh, donc ñoom euh, circulaire boo xam circulaire bu mujjee génn ñuy wax ci wax urgence mooy euh, malade boo xam ne dafa dugg hôpital rek nekk ci comme ni ñu koy waxee nekk situation urgence wala ba kenam nekk ci xottu gerte kooku moom lu hôpital mun a def pour débrouiller pour jël ko en charge dina ko jël parce que kuy ñëw déjà que accident dafa xaw a doy waar parce que boo accidenté fi nga accidenté sa bagage yëpp fa nga koy bàyyi mm-hmm. boo ñëw doo ànd ak sa mbokk nit ñee lay yenu indi donc kooku boo ñëwee c'est pas mënuñu la laaj pour nga joxe dara et puis ngay nekk dans des situation yoo xam ne mënuloo wax dëgg yàlla kenn mënu la laaj pour nga joxe dara donc ñun loolu dañ koy préparer bu ñu amee genre malade yooyu noonu dañuy am stock boo xam ne ñoom lañ leen di jëlee en en charge lu luñ ci mën dañ koy def hospitaliser leen bon loo xam ne tamit mun na xaar mu xaar ba saa yu mbokk yi ñëwee après ñu ci mën a lijjanti ñu lijjanti ko. sëñ bi jël wa sëñ bi mom wax deug yalla ñu koy ñu koy jaajeufal parce que déjà rek bu mu ñëw dafa dalal xelu xelu maladie parce que lolu aussi day am importance parce que nit bu accidenté xelam day ñu koy xelam day day day day day naaw donc lolu day am importance xel euh, sëriñ buñ ko gisee rek déjà day délo seen xel mais également euh, ci lu demee ni ci prise en charge ak lepp mom wax na né mom mo jël engagement en tout cas pour jappalé ci jappalé len déjà et puis jappalé aussi hôpital bi ci lim ci ci lim ci def ci ay effort donc loolu moom ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal bu baax am na solo mm, docteur Ibrahima Sow chirurgien orthopédiste traumatologue chef de service ah. Abbas Abbas Abbas Niass. Mm. accident bi nu mu demee. ah. accident bi nu mu demee fu ngeen jógee woon. waaw yow rek waxtaan ci police après mu man dama tëddi mm. léegi gis naa man ci hôpital. da doon nelaw. waaw. moom yaa ngi nelaw. xam nga gis na man ci ci hôpital. ma ko dara. yow rek gis bopp hôpital. waaw. yow uh, ci Burkina ngi doon jógee Nigéria jaar Burkina ci nga bokk. ci Burkina sooja jàpp jàpp ko ñaari fukk góor. Mm. waaw mu gaañ. ñaare fukk kol suma auto juróom benn gor après ganaa moto auto ñetti gor après juróom ñetti gor après yaani gor benn benn benn gise naa ki kii ci kafar kaf faaka waaw après faaka mu dugg

mun tsaya ki ka fara da wannan eh su faransh ne faransh mun ne faransh mun ga taksa mane genna genna mun nan duka genna fa fi yi yauna genna yi auto genna a fare wa halman e eh, dugu dugu dugu dugu auto dugu auto gawal gawal mun mamudan wa haka ka buran auto hands up hands up borom auto, du du xas man waago ko xas op oh. sono xas après dugg après dugg auto léegi gis naa ko ñu juróom benn góor mu tak tak tak tak tak alhamdulilah situation bi moom dafa rassurant parce que vraiment bi ñuy départ amoon nañ jaaxle parce que auto bu dajeeg beneen auto xaj na bu ko ëpp doole euh, am ku ci gaañu ci saa si so déparé da ngay japp né situation bu bu raglu nga fi fekk wayé biñ accès ci hôpital bi rek li ñu njëkk gis moy suñu xel dafa dal parce que hôpital bi vraiment euh, ken bëggut hôpital wayé bu doonoon leneen du hôpital rek nit dana fa bëgg jël nek pour noppalu fa hôpital bi setna na rafet fekk nañ fa accueil bo xamné amna na solo fekk nañ fa yi tamit administration bo xamné vraiment am nañ professionnalisme gis nañ ki nga xam ne moom moo yore administration bi wax nañoo ñoom dem nañ ba ci malade gis nañ leen fekk na sax ñoom ni ñuy liggéeyee ci hôpital bi mooy bu urgence ñëwee ñi gën a jàmp nga xam ne ñoom mënuñoo xaar ñoom anticiper nañ ngi ci war a opérer opérer nañ leen ci opérer nañ ci ñetti nit am na ci ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo gënoon a ñoo ci topp programmer leen leen pour pour pour opérer leen ñi ci des ñu ngi leen di toppatoo ñun ñëpp gis nañ leen jox leen loxo wax ak ñoom. donc loolu tamit ñu wax ko pour ñu dalal seen xel bi fa ci lañ ñëw gouverneur fekk fi gouverneur boo xam ne ji cheikh la ku mat kilifa ku am vraiment yéene autorité yu mel nii nañ leen ci vraiment jox ñu ñun ñëpp mm, ñu fekk fi tamit médecin chef bi bu région bi fekk tamit directeur hôpital bi ñu seedeel bi yëpp ne hôpital yi de ko parce que sama docteur congaan daana ma wax ne manako yow docteur dama la gëj gis mu ne ma gëj gis docteur baxna waye <laughs> manako waye bu docteur bi nekkee sa bokk wala sa goro yi tamit xaw ma noo koy gëj a gisee euh, loolu fekk nañ ko fi fekk nañ fi gouverneur tamit bo xamné vraiment jox na ndigal ne leen li ma wax ni ordre la médecin chef euh, directeur hôpital bi ak mboolem ñi ne leen ñii ay malade yu spéciaux lañ taxaw leen leen ci parce que malaatu khalifa bàyyi lañ malaatu Medina lañ te ku nekk xam na xalifa bi li muy liggéey ci réew mi ak li muy taxawoo mboolem ñi nga xam ne ñooy saytu réew mi loolu mooy mooy li nga xam ne moom lañ fi fekk ñu ngi koy seddaloo ñëpp di ko seddaloo xalifa bi di ko seddaloo imam Medina di ko seddalee taalibe Baay yëpp ñëpp jaaxle woon nañ waaye ñi ngi wane ne dëgg dëgg autorités taxawaay bi ñu war a taxaw ci lii nii taxaw nañ ko ci nag ñëw nañ pour côté bi nga xam ne nag moo ci euh, euh, soxla moo ci moo ci moo ci euh, moom la ci taalibe yi moom ak luñ la jël jël en charge yi tamit am na loo xam ne taalibe yi war nañ cee def seen doom lañ seeni taalibe lañ ay nit ñu bugg bàyyi ñoo xam ne bàyyi moo leen jaral ñu jël risque ci zone boo xam ne zone de turbulence la xamoon nañ risque yëpp mais ñoom nee nañ gëj a gis bàyyi moo gën a métti ci ñoom fitna jooju nga xam ne moom la ñuy ñu ñëw li leen dal dal leen ci soxla nañ ndimbal lu ci kilifa gi parce que ku nekk xam na taxawaayam ci réew mi au delà même dinaa ci ñëwaat ci kanam tuuti mais li may gën a li fi may commencé mooy kàddoom bu barke démb bi je pense que ñëpp dégg nañ ko kàddu bu am solo dugg ci xol yi dugg ci voilà bépp nit du jàmm daal. Mhm. vraiment muy kàddu kilifa. Mhm. donc ñu soxla woon ko ci période bi nag parce que dëkk bi dafa xawoon jaxasoo. Mhm. muy vraiment mais ni ñu ko waxee rek c'est dans la tradition de Baye Niass. donc ku ne xam ni vraiment taxawaayam ci réew mi et au-delà ni nga ko waxee boo demee Ghana Soudan Burkina Mali voilà dafa day day day day mel mel yaa Sénégal. Mhm. ndax li fa bay ci jot a liggéey. ba taxna vraiment voilà ñu ngi rafetlu bu baax a baax seen sa ñëw bi ak euh, délégation bi di la seede ni tam vraiment euh, ñu ngi fi ak say ay ñi fi togal bay mhm. ku melni Cheikh Cheikh Ibrahima bammi mhm. vraiment muy kilifa bu mat kilifa jeune la dama koy wax souvent mais kilifa bu mat kili kili kilifa la représentant tam ku mat représentant la vraiment mu ngi taxaw njaboot gi taxaw la vraiment tarixa bi taxaw daal vraiment lépp lu jëm ci bàyyi daal mu koy doxal ci ay anam yu rafet boo fi ñëwee euh, jaadu na ma seddal la ko muy man muy ñu fi nekk yëpp vraiment ñu ngi rafetlu taxawaayam ci wàllu diine ci wàllu daara yi ci wàllu koom-koom parce que béykat mag la mais aussi ci ci wàllu jëm jëmalante ak jàppale administration loolu tam lu am solo la ba tax na boo fi ñëwee vraiment jaadu na ma seet seede la loolu fi may daan la mooy peut-être fa waroon doore di la den jaale suñu mbokk yi fi mbokk bi bi fi jógee di ñaanal ñuy ñi nga xam ne ñoo ñoom ci hôpital yi yàlla yëkkati leen ci jàmm ak salaam waaye vraiment ñu ngi ñaanal bu baax a baax di leen présenter aussi médecin chef de région Momo moo yore le plus santé ci région bi docteur Thiam vraiment muy ku baax ak directeur hôpital comme yaa Don doon seere sànq ci hôpital bi monsieur Sène vraiment muy samay collaborateur yu yu ma yu ma gën jege ñoom laa gën solo ci chef service parce que santé moom dafa doon lu am solo tax na vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax parce que l'effort mënoon ngeen ñëw def li ngeen def demaat wàll wàll ngeen woo ñu sax ñëw mais le fait ngeen bàyyi lépp ñëw ñëw sama ndek ñun ziar ñu vraiment ça nous fait plaisir vraiment tax na boo leen demee daal wax leen xalifa bi vraiment Kaffrine de euh, daanaka bu nekk troisième position mu nekk quatrième position daal ci yoon wi. Mm-hmm. parce que fii moom en tout cas taalibe bi bàyyi moom bëri na fi trop. am na fi solo te day jëm kanam rek jëm kanam rek vraiment tax na vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant di la voilà ñaanal yàlla daal parce que li nga def nii lu rëy la si ñun sëriñ bi jël na engagement ne lépp lu fay ordonnance ak lu ñu war a fay ci saal yi daañu ko fay ci turi xalif bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass seen mbokk la woon El fii ci diwaanu Kaffrine hôpital régional